99 euh, point 0 fii ci Ndakaaru 98 euh, point 3 ca Louga ñu ngi ci euh, tribunalu Ndakaaru ak xooxaan dong en direct ci Walf FM xooxaan li nga fi jot a jukki sànq ndax am na lu beesaat wetu tribunal ba d'accord euh, Abdoulaye booy seet nag euh, amul euh, lenn loo xam ne nii xëy na soppeeku na ci li nga xam ne moom moo fi nekkoon. Mhm. donc muy li nga xamante ni mooy procès bi xëy na ñi nekk ci biir ñoo mën a biral xabaar boobu. Mhm. waaye daal jàppale ne Ousmane Sonko moom dugg na ci li nga xam te moo di palais de justice léegi tey mu mot trente minutes. Mhm. donc ñu gis ne aussi Abdoulaye comme ni ma ko waxee léegi li fi nekk jamono jile mooy taskatu xabaar yi nga xam ne donc daal dinañ leen parquet fi nga xam ne mooy ci parking bu nekk en face palais de justice booy seet dañu doon am possibilité dem euh, de l'autre côté donc côté ou en dans notre pour mën a xool la fay xew mais dafay mel ni bu ñu bëggee génn instant yi nii euh, mbir yi dina xaw a jafe ndax euh, dafa xawoon am pëccëxoo tuuti ba tax way takk der yi gis naa waxaguñu nag mais gis naa ñu taxaw fi nga xam ne mooy ñaari bunt yi nga xam ne parking gi am na ko ngir daal di fay def benn rang lu mot ay trois trois Euh, ñi ci nekk taxaw ci buntu kon ragal naa ni euh, taskatu xabaar yi sax buñ buggatee bouger ngir dem mhm. ci euh, fi nga xamante ni ñoo yenn extrémité yi pour mën a xool la fay xew mën na am ñu tere leen te noonu sax lay demee ndax bu mujj bi nga may mujjee jël rek maa ngi taxawoon l'autre côté mais am na ku ma ci ne mhm. avancel nga dugg ci parking bi wala nga génn mhm. donc pour dire que ne donc liggéey bi du du yomb ndax nii ma leen gisee ni ci teree ñu aaye ñu mën a bouger ngir mën a taataan ay xabaar ci lañ jëm waaye nag euh, lu ci mënti am rek xëy na ci kanam dinañu xam lan moo fas yéenee doon seen taxawaay hmm. euh, donc yi donc fii ñu nekk nii euh, woy takk der yi waxoon naa ko sànq bëri nañ fi lool nee na man bi ma dalee couvrir ba léegi hmm. musuma gis procès boo xam ne nii ay woy takk der bëree nañ comme ni ñu bëree aujourd'hui te te te nañu bëree noonu la seen woto xëy na bëree ca bërëb ba noonu la demee indi nañu seen i ay woto seen i ay woto yoo xam ne nii sax moom hmm, daal jumtukaay yàlla xam Hmm, moom euh, seeni jumtuwaay daal am nañu itam ay keesu lacrymogène yoo xam ne par moment da ngay gis ñu wàccee kees ci oto dugal ci beneen oto donc pour ne ñoom moom euh, waaj nañu xëy na euh, ñu ngi taxaw itam teg seen ay barrières ci yoon yi nga xam ne ñoo dem ci palais de justice hmm, hmm. donc pour diir que ne yoon wi pour nga dugg faw rek nga doon koo xam ne amaanaa di nga soxla ci tribunal bi wut si fi ab këyit te balaa ngaa dem tamit di nga wax lu leer wala boog nga doon taskatu xabaar ngir rek ñu mën la bàyyi nga dem def sa liggéey mooy li nga xam ne am na fii ci ginnaaw nag am na ay militants yoo xam ne nii ay militants Pastef lañu ñëwoon nañu Euh, daal di fi dajaloo ngir rek euh, def wane seen bopp ngir jàppale tànk seeni i leader Sonko euh, ca noonee nag la ñu daal di formé wu ay groupe yoon yi dem côté Sandaga mhm. force de l'ordre yi muy policiers yi aussi dem tekki leen foofu daal di leen repousser donc mu am sax ñetti ñoo xam ne ñii ci ñoom daal di nañ leen teg loxo loolu moom sama bët moom ma ko may mhm. ñu daal di leen teg loxo jëlee leen ci foule bi daal di leen yóbbu ci seen i oto loolu daal mooy li nga xam ne moom moo fi xew Abdoulaye Bob Hmm. palais de justice donc ñun journaliste yi donc taskatu xabaar yi c'est caméraman yi ñu ngi samp suñu ay caméra euh, daal di xaar ba xam ana lan mooy tukkee ci mbir yi ak ban évolution hmm. moo ci am ak lu ci mën di ne nag yàgg nga couvrir ay événement yu mel nii daa mel ni tamit euh, euh, matuwaay ya ca war yëpp daa nga ko matal tey jël ko ngir tamit askan wi mun a leerlu ci googule procès dëgg la euh, jël nañu suñu ay matuwaay en tant que journaliste euh, wax nga ko léegi amaana xëy na euh, yàgg nañuy couvrir ay mbir yi ni mel ba tax na nag lépp li nga xam ne rek moo fi ruusee ci xabaar dinañ def suñu kemt lay kattan ngir ñi nga xam ne ñooy auditeurs Walfadjri ñi ñuy suivre ci suñuy plateforme yi yëpp mën cee jot ci anam yu gën a wóor Abdoulaye mm-hmm. donc loolu rek moom moo fi nekkagum Abdoulaye Bopp donc ñun en tant que taskatu xabaar daal dinañu sol suñuy gilet ñi nga xam ne dafay wone xëy na ay xabaar la ñu jël suñu matuwaay daal ba lépp mat ngir rek amaana ñu mën a euh, euh, euh, amal suñu liggéey ci ay anam yu mucc ay xëy na boo mënoon a taataan suñu naataango taskatu xibaar ya fa teew ñu dégtal ñu naka lañuy dundee bile le procès fa ñu nekk di taataan xibaar sa sa confrère yi boo leen mënoon a jege d'accord waaw xool ñoo xam mm-hmm. dinaa leen dinaa leen Euh, mhm. dinaa leen jël mën a taataan seen i euh, mhm. xalaat ak naka lañu ñu gisee euh, li nga xamante ni moo di procès bi ngir mhm. rek ñu mën a addu kii moom sama benn naataango bu nekk Sen TV la donc mel ni moom dafa xaw a occupé ci liggéey bi donc dañuy daal di waxal gaa yi mën a xool kenn ko xam ne xëy na mm-hmm. euh, dinañ ko dal di interroger ngir rek euh, nga mën ko xëy na poser euh, ay question ci Pape Malick Pape Malick donc taskatu xabaar la nekk ca 7TV mm-hmm. donc Pape Malick yaa ngi en direct ci Walf FM ñu bëggoon xam rek naka ngay dundee couverture bi ak li nga xam ne jot nga koo gis depuis ce matin bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi lay euh, bon ce matin ça a été un peu difficile français euh, wolof euh, bon si suba météo la trop mhm. parce que dañuy ñëw environ cité Kër Góor gi fi Ousmane Sonko presque ñu reculer ñu à cent mètres et puis bon amul woon benn militant ñun suñu ay micro ak ay caméra rek la ñu yoroon mais ñu tiré ñu ay lacrymogène Euh, donc euh, bon loolu c'était un peu déplorable quoi ce matin que les yi ñëw duñu leen may seen liggéey ñu liggéey ni ñu mënee mhm. euh, mais tane woon na bu ñu ñëwee ci enceinte tribunal bi parce que foofu tane woon na policiers yi ak gendarme yi nekk fii xaw nañu am compréhension contrairement ak euh, avenue Malick Sy bi ñu fa tollee aussi foofu aussi suñu oto ak oto presse yi fa yëpp dañ ko dévoyé euh, mu nekk lu nga xamante ne bon lu un peu c' est un peu difficile quoi euh, mais pour man bon journaliste aussi dañ leen war a sóoraale ce genre de situation yi que police ak mhm. gendarmerie su fekkee ñoom dañuy def ay réunion de préparation que ñu boole waale si lu nga xamante ne moom mooy préparation journaliste yi c'est bien journaliste yi am na ay infiltration parfois ñoom dañuy sóoraale loolu mais ku nekk yaa ngi sa carte de presse après ñoom am nañu moyen pour vérifier kat moo nekk journaliste ak ku nekk journaliste ba nga xamante ne affaire bi du am benn benn confusion ba journaliste bu nekk di nga mën a def sa liggéey convenablement. d' accord Pape Malick doon taskatu xabaar nekk le tv moom la ñu doon teewlu noonu Abdoulaye. mu doon mhm. revenir rek comme euh, ni ngeen ko déggee ci situation yi nga xam ne euh, journaliste yi ñu ngi koy liggéeyee ki nga xam ne moo di euh, diggante cité Kër Gorgui ak palais de justice. waaw wax na dëgg foofee cité Kër Gorgui am na benn lacrymogène bu ñu fa sànni. Mhm. nee naa boobu lacrymogène moom xëy na mënoon na ñàkk ndax amul woon benn militant fa nekkoon. su personnes yoo xam ne xëy na sax euh, suspend nañu ña fa nekkoon ay taskatu xabaar lañ soit bu ñu yorul micro ñu ngi yor caméra wala seen ay téléphone di def seen i live donc amuñu woon raison pour sànni boobu lacrymogène mm-hmm. loolu la doon addu ñoom aussi ñi nga xam ne ñoo toppoon convoi Ousmane Sonko bi xamle nañ ci yoon bi euh, déplacement bi xawoon na jafe par par moment dañ leen doon euh, dévier pour ñu mën a jaar ci yeneen mm-hmm. yoon yi mm-hmm. loolu daal mooy euh, li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne yooyu jafe-jafe la ñuy liggéeyee mais ànd ak loolu yëpp xëy na dinañ mën a te xam nga te xam nga xooxaan sànq rek ñu ngi ci doon waxtaan la xew ca biir tribunal bi nga xam ne woon ne faw ñu jegee Moussa Sène ma nga ca biir salle d'audience ba waaye nag jafe na lool ñu am ko ci waxtu wi lee jéem nañ ko woo waaye nag antuwul xëy na ni ba bindoo dina jafe lool ñu mun a taataan agum foofu xibaar euh, ba tax na actualité bi daal en attendant yaa ko amagum yow mi féete ca buntu tribunal beeg euh, la ko wër incha allah bëgg nañu lépp lu fa xew askanu Sénégal rawatina auditeur Walf FM euh, mun ko dundandook ñun. waaw kay euh, Abdoulaye. Mhm. Euh, wax nga dégg euh, Moussa seen ci situation bi mu nekk certainement du mën a du mën a génn pour di dugg souvent en direct par booy xool salle d' yi ni mel audience yi seen salle yi du doon salle yoo xam ne amaanaa dafay yaraax ba nga mën a porox ndalu pour mën a génn dañ fa sax tere portable def direct taal bi dafay daal xet donc mm-hmm. boo nekkee au fond mënoo sax euh, franchir ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw sa ginnaaw yëpp mm-hmm. ndax euh, tellement dafay euh, dafay bëri nit te boo génnee sax boo raga boo boo boo sàgganee dootoo dootoo delluwaat donc mën na doon loo xam ne nii daf lay porter préjudice ndax bu fekkente ne yaa ngi ci salle d'audience bi mm-hmm. génni mën nga lijjante ba génni mais duggaat bi mën na indi ay jafe-jafe te su boobaa aussi da nga koy daal jàppale donc dañuy préférer ku nekk ci biir rek nga daal di déglu euh, ba amaana xëy na édition bu amee nga obligé ñëw def édition mais bu fekkee dugg ak duggaat yi moom xam naa du mën a jàppandi côté Moussa Sène mhm. xam naa ci situation yi muy liggéeyee donc ku ko xam aussi xam ni euh, situation yooyu dafay jafe lool pour ngay def euh, souvent ay intervention en direct ndax sa téléphone déjà bu fa sonné dinañ la daal di génnee pour dootoo nekk ci salle d'audience bi donc da ngay éviter loolu dañuy obligé ñoom def téléphone conscient mhm. wala vibreur boog ba nga xam ne euh, par moment rek bu occasion bi présenté woo ci la ñuy mën a génn def le point mais booy xool du euh, ñu génnee rek euh, amaana mën nañoo amaat jafe-jafe wala boo toogoon boo ñëwaatee di ngay fekk sa place ñu ñu toog si même fi nga taxaw sax xëy na boo fa jugee mhm. mangoog ngoog euh, xooxaan euh, ndong en direct ca tribunalu ndakaaru ma nga woon ca peggu tribunal mu ngi ñuy dégtal ci waxtu wi la la fa xewagum daanaka euh, mbooloo ma taxugoo demee noonu ndax li mu takk der yi nga xamante ne ñoo fa ne xooxaan ndong en direct xooxaan allo allo xooxaan daa mel ni jàppandeegul xëy na nag ñu fàttali leen li sabab bile procès jëm ci kàddu yu tukke woon ci Ousmane Sonko njiital Pastef mi xam le woon ne liir na ci ab rapport euh, IGE goo xamante ne jot na fësal euh, luubal gi nga xamante ne kii di Mame Mbaye Niang def na ko ci lu toll ci ñaar fukki milliards ak euh, juróom-ñeent ca Prodac kàddoom yooyu la nag taxoon Mame Mbaye Niang jot ko clamé fu mbaxana doone benn ngir sàkku ci njiital Pastef mu indi ay ci tuuma yooye mu teg ci ndoddu Mame Mbaye Niang euh, taxoon euh, bile procès ñu amal ko tey jotoon nañ ko junj fan yële ñu weesu waaye nag jotutoon na antu ndax càkkuteefu ay avocat Ousmane Sonko doon sàkku ñu dàq euh, bile procès ba jëmi jamono tey ji nag lañ koy amal foofee ca tribunalu Ndakaaru la fa xewagum nag ñetti doom aadama yoo xamante ne ay jegeñaale Ousmane Sonko gañ fa teg loxo mbooloo nag taxaw ko demee noonu waaye nag la ne ci mbooloo di ay takk der

Eh, taxaw nañu takku ba dëgër ngir wattu kaaraange askan wi ak seen eh, moomeel eh, ci googule procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye ca tribunalu Ndakaaru ci kanam tuuti incha allah dañu jokkowaat ak suñu naataango gañu fa teewal di xooxandong Walf FM 99 point 0 fii ci Ndakaaru 101 point ca Kaolack 102 point 4 ca Matam 98 point ca Walf FM Louga bu nag ca Touba Mbacké eh, ñu ngi fay taataan leeru jamono ci 89 point 3 foofee ca Touba Mbacké eh, fii ci Ndakaaru di 99 point 0 eh, baatu askan wi mbokk yi ci noonee ñu demaat ca tribunal bu neski see lay doon mangoog en direct ca tribunalu Ndakaaru xooxandong daa mel ni jege nga nga rajo jege nga rajo bu jàpp Walf FM waaw na wàññi rajo bi jàpp rajo Walfadjri allo oui allo waaw ma ngoog euh, jot nga wàññilu rajo boobee nga xamante ne xaw naa gàllankoor sa communication euh, bokk na ci ndax euh, yëf yi ba tey na mu meloon ba léegi dara soppeekagul non no dara soppeekuwul Abdoulaye <laughs> amaana am na benn bagaar boo xam ne peut moo fi nekkoon waaye nag